Euh, am mboolee président yi nga xam ne moom ñoo mas a ci biir Touba moo xam muy ki ah, fi mujjee jigi Abdoulaye Wade moo xam muy euh, ab ab Abdou Diouf moo xam muy Senghor li nga xam ne président Macky Sall def na ko ci biir Touba amul kenn ci ñoom ñoo ko xam ne def na ko ci biir Touba Serigne ah, ay ñaan yu bëree bëree bëree bëri ci ay domaines yu bëree bëri sëriñ da koo ñaan ci Masaalikul Jinaan même bi mu naan tey ah, suñu borom boo maskani sallim minal fujaari yow suñu borom ma ngi lay ñaan nanga nga def ci sama dëkk bi nga aaral ma ko sàmmal ma ko moska mi moska ni sal ni mënal fijaari di di ñaan yàlla mu aaral ko dëkk bi président Macky Sall ñëw daal ñuy sampal euh, escadron bii nga xam ne moom moo nekk ci biir dëkk bi muy renforcer sécurité bi mu ñaan suñu borom ne wam nu na ala ahli bi maa en jaari yow suñu borom maa ngi ñaaral dëkk bi nekk dëkk boo xam ne dëkk bu important lay doon ñu tabax ko ci ci wàllu euh, ci wàllu waar assainissement suñ tubaab yoon yoo xam ne ay ndox da jaar muy méngoo wam na laa ay ay ndox yoo xam ne ay yoon yoo xam ndox def ci assainissement Touba lu ëpp 18 milliards fii ci dëkk bi moo suñ ñaar suñu borom kazalika ne ko du wuuteeg foofu Sëriñ Touba ñaan loolu mu ñëw sampal ñu hôpital bi nga xam ne niveau lay doon nga xam ne day Touba bu paree incha allah Touba kenn du fi fi di dem principal wala dantek maam Xarim valoriser li nga xam ne moo tax man nag mom dama yagg ci parti bi diko ko liggéeyal def na ci manam plus de manam 3 ans dama ñëw ci parti yagg mi def na ci plus de trois ans diko ko liggéeyal mais li ma ci nek di liggéey mënuma fex ba ba ba ba satisfaire parti bi dara mënuma fexe ba génn résultat dara mais bi ma ànd ak soxna maam Xadim Mbàkke ci diirub un mois ci laa wane preuve yoo xam ne tey Touba tey li nekk sama ginnaaw tey leer nañ daañu ne ñu xam ci leer leer nañ daañu ne kon su ma àndoon moom kon du ma ma du ma mën a satisfaire lii ndax moom moom ma jox ay moyens jàppale ma sama ginnaaw dëgëral ma ba ma mën a ma mën a lii. waaw tey lu tax ñu teew fii ci marché tey bii mooy ginnaaw xale yi nga xam ne dañ leen di nax di leen réeral ñuy marche ci loo xam ne du dëgg du yoon bu ay xale jugee am pas-pasu marche ci dëgg marche ngir wane liggéeyu président Macky sàll marche ci dëkk bi wane ne dëkk bi dëkk jàmm la dëkku diine la dëkk lislaam la kon xale yooyu ñu dañ leen di soutenir jàppale leen te encouragé leen loolu mooy suñu teewaay tey fii kon Fadel Mbaye ñun ñu ngi leen di félicité ci liggéey bu rëy bi ngeen def parce que yéen wane ngeen le bon exemple wane ngeen ne nit bu defee lu baax dañoo war a marche wane fësal liggéeyam wane ngeen ne nit bu jëfee dañoo war a marche dox ngir wane ne dëkk bi dëkku jàmm la dëkku lislaam la dëkku diine la ku la gis xam ne doomi soxna nga ku la gis xam ne jàng nga xam nga li nga war a xam kon boo jiitee lu toll nii woo ñu ci ñun dinañ ñëw soutenir la encouragé la yàgg sa moroomu xale yëpp te wan na leen lii mooy yoon wi nit day fësal lu baax nit day nëbbu ay ayib tey jii lii la Serigne Touba digle ci dëkkam bi lii la Serigne Touba Serigne Mountakha bëgg ci dëkk bi mooy nit bu jëfee lu baax dañ koy wane bu jëfee ayib ñu làq ko euh, barab waxtaan ak moom yedd ko mu génn mu génn ci waaye nag dafa dem ba tey boo déggee marche di soxna sax da ngay tiit na ndax sama doom demu ja tey boo seetloo ñiy organiser marche boo xam ne du tegewul ci yoon ñëpp ña nga seeni seen i doom jël doomi jàmbur yi wax leen ne leen dem leen marche bu ñu leen jàppee ñu tëj leen ca kaso ba ñoom ñu toog di leen seetaan xale jugee wane ne Sénégal du ñu jubul rek kay mars mii ñu jub ñi ngi fi ñi bëgg dëgg ñi ngi fi ñi xam yoon ñi ngi fi moo tax tey daal vraiment mën ma ñëw wàcc ànd ak ñoom ci marché bi di encouragé nag mboolem xale yu nekk ci biir réew mi di leen wan ne leen nit ki dafa war a fësal lu baax te nëbb ay ayib